أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا la ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ñëwaat daal jëpp di leen ziar di ñëwaat ci suñu darsoo ba fukkeel ak juróom ci tasawudu sixaar bi jéemal laa biri wante ak suñu mbokki taalibe rek lu ci jub ñu sante ko suñ borom lépp lu ci dëng rek ñu bokk bokk ñëpp jubbanti barki borom Tuubaa ñu duggoon ci buntu islaam jàng nit ñu war a jëfee santaani yàlla ci kaw suuf waxoon la ne lislaam juróomi ponk la am bi ci jëkk mooy tudd yàlla muy wax ñaari baati seede yi ñaareel bi mooy julli ñetteel bi mooy koor ñeenteel bi mooy aj makka net asaka mooy juróomeel bi mu waxoon la tudd yàlla nan lañ koy defee mu teg ci julli mu ne faslun li ab dog la fi salawaatil xamsa xamsi ci julleey juróom mu ne waalam xamal bi na salawaati ci ñakka julli ya alxamsa yaddi juróom faridatun farata lañ qataan ci lu dog ci lu amul benn werante waqiita yal na fegalees la yal na fegalees la labsan am lent bi zikri ci tuddug alquran wa sunnati ak sunna wa ijmaañ ak dajeek fóore yi mu ne na nga xam ne jullee juróom moom farata la ci mépp mukallaf moo xam góor la moo xam jigéen waaye boo xesee nekk mukallaf rek jullee juróom farata la ci yow li koy dëggal nag mooy alquran suñu boroom da ko wax ci alquran yonent bi waxaat ko ci waxaat ko ci xaddiis boroom xam-xam yépp daje ci waaw da gis ñu andi benn masala wala nga dégg ab xadis ñi dégg ko nii ñi dégg ko nii ñi waxe ko nii ñi waxe ko nii ñi toppalee ñi toppalee waaye julli juróom moom alquran wax na ko yonent boo xaat ko ci xadis boroom xam-xam yépp daje ci ne farata la loolu moom kenn werantewu ci waaw mu ne waman yakun ku nekk képp koo xam ne dafa nekk min ci ñoom alamtinaa'i ci ak bañ jahdan ngir weddi laxaa julli fa huwa moom kal mu ngi mel ni ku murtad kal mu ngi mel ni ku murtad génn ci lislaam fii hukmi ci àtte yustataabu def na ko tuubloo jiimal àddi diiru ñetti fan fa in yatub ndéem tuub na yutrak def na ko bàyyi kon wa in lam yatub ndéem tuubut nag taqtulhu kon rey ko bi sayfi ci jaasi shariatu nabi yoonu yonent bi salla yal na dolli tedd nga ali allahu yàlla alihi ci moom bi salaamin ànd ak dolli wóolu fi alihi ci ci ñoñam wa ak ay saxaabam alxukkaami ña di way atte mu ne kon na ngeen xam ne julli juróom moom faratalu ci mépp mukallaf képp koo xamante nii nag dafa lànk ne du ko def lan moo tax du ko def maanaam weddi ne julli moom bokkut ci lislaam waaw moom nee na jullit la waaye nee na jullit daal la gëmut ne ci lislaam la bokk boo tax moom mu ne du ko def wala daan na ko def dem ba ci yàgg mu ne julli bokkatul ci lislaam kon kooku dañ koy jàppe ku ku génn ci lislaam ndax juróomi ponk lislaam yi képp ku ci weddi benn ne gëm ne ne da cee bokkul kon kooka dañuy jàpp ne weddi na lislaam gépp ndax yonent bi moo ko àndi boo ne gëmuma lii kon weddi nga yonent bi yonent bi li mu indi lépp suñu boroom moo ko jox boo ku weddee loolu weddi nga ne suñu borom kon moo yónni yonent bi kon képp ku gëmoon ne julli ci lislaam la bokk di ko def bu mu yàgg nga ne dootuma ko def ndax julli daal bokkul ci lislaam nit ñoo koy wax rek weddi ko daal kooku nee na maanaam ci ate li lislaam digle mooy kooku dañ koy may ñetti fan ngir mu tuub waaw su fekkee tuub na ci biir ñetti fan yi kon ñu bàyyi ko waaw su fekkee nag tuubul ci biir ñetti fan yi ba ñetti fan yi jeex kon boobaa dañ koy rey ak jaasi loolu mooy li nga xam ne mooy atte bi ndax lislaam moom du forcer kenn ci danga dugg ci lislaam waaye boo ci xesee dugg moom maanaam doo ci dootu nangu nga génn ci noonu noonu noonu te képp ku weddi julli wala nga weddi koor wala lépp loo xamante lu aj ci lislaam la nga xamante nii ñëpp dëppoo nañ ci ne manta ñàkk ni ki juróomi ponk yi nga weddi ci benn kon daan ngay weddi lislaam gépp waaw kon dootul ñu la jàppee jullit kon dinañ la may ñetti fan ngir nga tuub bu ñetti fan yi jeexee tuuboo ñu rey la euh, loolu la ci sariya digle bu fekkee nag dafa def loolu ba ñu rey ko moom moo tax mu ne walay sa yoo salu defu ko walay sa yoo salu defu ko sàng defu ko sàng walay sa yukk fanu defu ko sàng wala laxoo deddi ko ñeel salaatun jullee lay sa yud fanu dee fu ko suul ci armeelu jullit yi fal imaamu eliman ja yursilu dana yebal sax seen jëm yu waarihi joj dana ko suturaal wala yustaqbalu te deefut jubale baytul ali néegub yàlla bay aji kawe bihi ca kookee wa maalunte alal yaxsulu joj dana am yu jaxalu def na ko def fi baytimaali muslimin ci baytimaali jullit yi muy seen keesub jullit yi mu ne ki nga xam ne dafa weddi warub julli ne moom gëmatul ne julli ci lislaam la bokk ñu tuubloo ko mu lànk ne bokk ci ba ñu rey ko kooku dañ day mel ni dafa weddi lislaam gépp kon kooku jàppeetuñ ko jullit dañoo jàpp ne ko murtad la kon bu buñ ko reyee ci noonu ci ci ci atte boobu kooku ab yéefar lañ koy jàppe moo tax deefu ko sàng deefu ko sàng ko julee tamit duñu ko suul tamit ci armée li jullit ñi armée ñi nga xam ne fi la suul jullit ñi defu ko denc noonu ndax moom ab yéefar la su fekkee yéefar sax nga fa dañ leen di jox ne leen pour ñu taxawu ko su fekkee nag ay jullit a fa nekk ka nga xam ne moo jiite foofa nga xam ne mooy moom moom moo jiite jullit ñi day yebal jëm rek joo xamante ni day dem suturaal ngir jëmmi doomu aadama ji li yàlla suñu borom wax ne wala xat karam naa bani aadama bu demee kookere dem rek gas ko daal di koy suul bu ko gasee di ko suul tamit du ko jubale eh, comme ni ñuy defee jullit nga xam ne danga koy suturaal jubale ko penkook yooyu ci maanaam kaaba gi yooyu yëpp doo ko ci def da nga koy gas rek ba mu xoot nga suul ko ni ku suul mala mala bu dee waaw eh, suul ba mu ba mu kii rek nga bàyyi foofa ndex bu du doon jëmmi doomu aadama ji ci suturaal ko rek kon sax day fut jaar ak moom foofu ndax moom ab yéefar la léegi eh, bu fekkee nag bàyyi woon na alal joo xamante ni jun war a la tamit kenn du ko doon kenn du ko doon ndax ñi ko war a doon bokkatuñoo ak ñoom fuñ jaar moom yéefar bu ñu rey la te kii ñoom ñi ko war a doon ay jullit lañ te jullit mënta doon doon yéefar kon dañuy jël alal ji nga xamante ni moom la amoon ñu def ko ci kees ji nga xamante ni jullit ñëpp ñoo ko bokk ñu jël alal ji def ko foofe li mu wax mooy na nga xam ne jullee juróom farata la ci mépp mukallaf yal na la yàlla fegal am lënt nag bu ko waxee mooy maanaam bañ a jaxas sa xel wala nga jàppe ko noo xamante ni demewul noona wala nga jàpp ne xëj na du farata wala luñ sopp la ci lislaam wala nangam loolu lay bañ moo tax mu ne yal na la yàlla fe wuqiita labsan yal na la yàlla fegal am lënt mu ne li tax liy dëggal ne farata la ci bépp jullit maanaam alxuraan da ko tudd yonent bi wax ko ci xadis boroom xam-xam yépp daje ci képp koo xamante ni nag lànk na ne du ko def lan moo ko waral wala daan na ko def dem ba ci biir ne julli moom laa gëmatul ne ci lislaam la bokk wala moom nangu koo def lan moo tax nga ne julli mu ne julli bokkul ci lislaam maanaam weddi ko ne julli moom bokkul ci lislaam waaye nangu na li des kon dañuy jàpp ne weddi na lislaam gépp waaw ndax lislaam moom boo xasee dugg benn ponk boo ci weddi ne bokkul ci lislaam kon weddi nga lislaam gépp gëmoo ci dara ndax bokkul am na foo xam ne day wax ne ki ki ko bañ a def ngir tayal waaye kii dafa weddi julli moom gëmatul julli gëmut julli ni ci lislaam la boobu kooku nee na dañ koy tuubloo ñetti fan bu ñetti fan yi jeexee nanguwul tuub ñu rey ko ak jaas loolu la sariya digle ci kooku bu ñu ko reyee nag deefu ko sàng deefu ko sàng deefu ko jullee su ko suul ci armeel yi ñuy suul jullit ñi tamit yëlimaan ji daal dana yebal jëmmi joo xamante ni mooy dem gas ko suturaal jëmmi doomu aadama ji mu gas ko suul ko bu koy suul tamit du ko jubale ci kaaba gi comme ni ñuy denc ab jullit su fekkee bàyyi woon na alal tamit alal ji kenn du ko doon dañ koy jël def ko ci kees gi nga xam ne jullit ñëpp ñoo ko bokk mu daal di mat kon mën nañoo yembandi foofu bu subaa ñu door dem ci ki nga xamante nii dafa bañ a julli waaye tayal rek moo ko waral waaye moom gëm na ko ñuy tuub di jéglu ñëpp ci ñàkk leer gi ak ñàkk fasaaxa gi lépp lu ci dëng rek ñu xam ne ña matadeeg doomu aadama la rek lu ci jub ñu sante ko borom bi subhanahu wa taala ci darajaay borom Tuubaa